Euh, mën naa ni sax waxuma la ay biddaa war nañ ko dépasser mais c'est une obligation ci jullit bi ndax lan mooy gàmm mooy bége bés bi nga xamante ni ci la sallallahu alayhi wa sallam wàcce ci kaw suuf indi fi leer jële fi lëndëm ma jox la si exemple euh, Iblis nga xam ni ñu ñëpp xam nañu mooy noonu nit mooy ennemi nit moom Iblis Euh, ñeenti yoon yi la mas a am lu ko metti wala ñetti yoon la mas a am lu ko metti ba jooy maanaam naqar am bu doon bu doon ci jamono nga ni ci la am dëj bu metti première bi mooy ba ko yàlla dégradé ne ko léegi wa inna alayka laanatiya ba ko yàlla dégradé rëbb ko génne ko ci kooru malaaka yi euh, dàq ko ci pée yàlla bi bis boobu am na lu ko metti mel na ni ci moom dëj ñaareelu bés bi mooy bis bi yonent bi salaa juddoo jooy na yuuxu na am na lu ko metti ba mel ni ku nekk ci dëj bu metti ñu laaj ko lu tax mu ni ki nga xam ni lu ma yàq su ñëwee réparé ko moo judd ñetteel bi mooy bi faatixatul kitaab wàccee ñu laaj ko lu tax mu ne ndax fii ak ñi ngi véhicule faatixa di ko jàng rek lu ma lu bëri lu ma mën a yàqoon ci kaw àdduna dootuma ko mënati Euh, kon li ma la bëgg a xamal foofu mooy iblis mooy sa ennemi yàlla nee na benn ennemi ngeen am muy iblis léegi nag nit ki sab noon bu kontaanee mooy yow da war a reetaan bu bu meree yow da war a kontaan kon sab noonu waru leen a daje ci ñaari situation nit ku nekk boo sañoon saa yoo xëyee di di di merloo sa noon saa yoo xëyee di naqarloo sa noon te iblis nag naqar bi mu mas a am ci kaw suuf yonent bi nettali ko mu di histoire di xaddis yonent bi salaa salaam muy ban ko dégradé bi yonent bi juddoo bi fatiha wàccee kon yow jàppal ne heure boo xëyee di jàng fatiha yaa ngi naqaral iblis mi ngi am lu ko metti waaye léegi nan nga mën a jànge fatiha di naqaral iblis kon kay juddu yonent bi salaa salaam bu jotee ngay célébré wu di si kontaan yaa ngi fàttali iblis naqaram boobu noonu kon kon loolu obligation la bi si des itamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko ne ko yow day dañuy gis ni bi su altine da nga koy woor tey dangay faral di def bi su altine maanaam bu doon ci jamono nga ni bernde bi su altine mu rey gàtt berndeel ay nit ñi laaj ko loo tax mu ne ci laa judd kon mooy kontaan na sax moom sallallahu alayhi wa ci ak juddoom léegi nag euh, ku mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa boo kontaanee ci bisu juddoom dafay wane mbégte bi nga am ci moom ma joxoon la si benn exemple rek tey nit ki bu anniversaire am jotoon nga envoyé ko message wala nga souhaité ko anniversaire am ni muy kontaane day yëg ni yow mi bëgg nga ko day yëg ni bàyyi nga ko xel day yëg ni dundam amal na la njëriñ léegi nag dund yëpp nag dund yonent bi saa sallam moo si ëpp njëriñ ba tax yàlla wàtti dundam la umruka ndegam yàlla dafa wàtti dund yonent bi saa te yàlla bu dee wàtti dara du lu mu gëm mais lu muy wane ni mënul ñàkk ci dund doomu aadama la par exemple yàlla waat na ci jant bi waat na ci weer wi waat na ci guddi waat na ci bëccëg dafay wane ni nit mënut a dund sans jant munut a dund sans weer mënut a dund saa bëccëg mënut a dund saa guddi noonu mu mënut a dund ci yudul yii noonu la munut a dunde saa ci bésu yonent bi sallallahu alayhi mu di si jàngat la umra ko comme yàlla giñ na ci dund rek te dund ay bés moo ko composé kon yonent bi sallallahu alayhi bés bu nekk jàng la ci moom moo tax mag ñi xamoon ko bind ci lu bari boo demee Seydi Hajj wax na ko nee na wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun fa fi taadimi in jaaxu sujuni Seydi Hajj Malik nee na màggal judd yonent bi salaa salaam fajug aajo la fajug aajo yiw kese la Cheikhul Xadim bind na lu mel noonu nee na sax benn dërëm la ñu ne tey la yonent bi judd nga jël ab dërëm sarxe ko wala nga jël dànku ceeb joxe ko wala nga kontaan si li la yàlla di defal dafa rëy kon baatu baatu gàmm moom euh, biddaa la loolu moom dépassé nañ ko léegi kay ni ñu war a def mooy fexe ba gën koo saxalaat ci xolu jullit ñi fexe ba objectif bi taxoon mag ñi indi gàmmu muy bëggaat yonent bi ak roy ay jikkoom ak génne ci lu si bokkul ci loolu lañ war a eh, tolloo kon soloy gàmmu daal mooy day wane ni nit ki kontaan na bëgg na ci bëgg na yonent bi salaa te bëgg yonent bi mooy martaba bi gën a rëy